sëriñ bi man yaa ma gën yaa gën ba gën gën lii nangu naa ko te yow mii rekk laa ko nangul ngir maa ngi lay moya moy yow yaa ngi maya may mbooloo mi ndax kile nit mas ngeen a gis ku moy ku koy faye ak may xaw ma fenn sa kem ku xam kemam na ko wax man laa jëwut te xamut ku melne man bu jusul won waaju melni ki yow mbiram du jak ta do am mukit lu koy suturaal ba ba man Babacar xam naa ne ma wara raw ba ba man Babacar xam naa ne ma wara raw mbollem ku lay sant ngir yow rek ya materal teral auzu billahi mina seytaani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñi ngi leen di fàttali bisub sëñ Mbay Jaxate bi yamook ajuma juróom-ñetti fan ci weeru baraxlu dëppoog juróomi fan ci weeru tubaab ñi ngi ci woo bépp taalibe ak bépp julit di ko yëgalit mbooleem seexi murid bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu fenn bàyyiwuñu ñeen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi xarit yi wëllëri yi am ñu jàmm yi soppee sëñ Tuubaa yëpp soppee sëñ Mbay Jaxate yëpp ñu ngi leen di woo ci bis boobu bi nga xam ne moom la sëñ bi yëkkati léegi muy bisu màggalu fàttaliku gu ñuy fàttaliku sëñ Mbay Jaxate ak di ko ñaanal ak di ko santale sëriñ tubaa cant gi nag moom moo ko woote woon moo tax man samay kàddu du ci sori damay bàyyee sama kàddu sëñ Muudu Jaxate mi nga xam ne moo yor kàddu gi moom laay bàyyee sama kàddu mu jottali ko li nga xam ne nag li wooteel gi nga xam ne moo ko wooteeloon boppam nag moom laay eh, moom laa leen di wax mooy moom ci boppam moo waxoon ne ku man na ñëw santale ma ku man na ñëw taggale ma sëriñ bii ndaxte may na ma lu sama xel musula daj moo waxoon ne eh, kuy saa xarit mbaate ngay saa mbokk foo mën a ne ñëwal tamay ma liggéeyub sant mbaa ma bala may yaa ngi may wër te may goo seeru sas la wuri ku dik bayle ma boo lootee ma bayle si la kon seigne Modou kaddu ga nga noonu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñu ngi nuyu mbokk julit yi ñu ngi nuyu mbokki taalibe yépp di jital ci nuyo bobu khalifa général seigne Sidi mukhtar ci turu khalifa seigne Baye Jaxate bi di seigne Abdou Jaxate ñu ngi koy nuyu nuyu go xamante ñu ngi ko tibbee ci sunu xol te diko ñaanam mu fi lool ci kanamu njaboot gi kanamu taalib yi yëpp waaye di ci sos nuyoo boobu mbooleem ñi nga xamante nii mooy ñoo topp ci moom di ay rakkam ak mbooleem tarixa muridiya bi nga xamante nii moom moo ne ci bopp bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar ñoom ñëpp ci kaw loolu ñuy jéem a jot li ah, ndigal li nga xamante nii tukkee na ci xalifa bi sëñ du Jaxate xalifa sëñ Bay Jaxate jëm ci mboolem jullit كيف كوي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أك موليم طالبي ييب غور أك جين ماك أك نداو سيرن بي مي لين دي فاتلي بيسوب سيرن باي جاخاتي بيسوب سيرن باي جاخاتي بوبو غا خامتيني با خو وانا نكو كو ات مو جوت سي جيروم نيات فان ويرو باراخلو بي لا سبب بيس بوبي نك نيار ناخ سي بيس بوبي كي لا سيرن باي رضي الله عنه وجوان بروموم juróom-ñetti fan yi baraxlu muy bisum ñaan boo xamante ni baaxoo nañ saa yu ñëwee ñu defal ko ci ay ñaan yoo xam ne yu am solo la ci bis boobee waaye bis boo xam ne dafa làmboo it ak cant ndax ku xam sëriñ Baye Jaxate xam ne mbooleem ak dundam jugut di si cant ndax loolu wane na ko ci mbindam sëñ bi dund na ko léegi ciy waxam ku mën na jóg sant le ma ku mën na jóg tàggale le ma sëriñ bi ndaxte may na ma lu sama xel mësul a daj bet bet na maa ki mbég yu rëy xëpp ti mbég yu rëy yu kenn xamul naka mu doy man waaru naa waaru ngërëm ci loolu lot gi mu ci lot ci cant gi ak fi mu ko toll moo tax mu woote nag képp koo xamante ni man nga ko nga ñëw sant le ma kuy saa xarit mbaat ngay saa mbokk foo mën a ñëwal te may ma liggéey bu cant mbaa ma bala may yaa ngi nii wër ma may goo seeru sas lu rëy ku dikk bayle ma boo lootee ma bayle si la kon loolu la ñuy rafet njort ne képp koo xamante ni ñëw nga ci bis boobu ñu wootee bisu cant boobu di santale ko ci bis boobee kon moom ci boppam am nga lenn ci ngërëm li nga xamante nii moom la amoon ci sëñ Touba ci cant gi mu ko cant ba may ko ci moo tax kon ñu woo képp koo xamante ni jullit nga ñëw ci bis boobee waaye képp koo xamante ni man nga ko itam nga euh, fàggul ci ay doggi kaamil alquran ci loolu lan ci tudde mboolem daara yoo yi nekk ci réew mi yépp ñu ngi leen koy fàttalil bis boobu mun ci àggee ku mën a teew ku ko mën a itam fa nga nekk nga def lim bu la so bi nga xamante ni attan nga ko sellal ko yéene ko yool bi ak mboolem ñi xamante ni ña nga foofu ci barsaq muhammadiya naka noonu képp koo xamante ni mën nga ci ay euh, ci durus xasida yi itam loo ci man ak salaatu ala nabi ak mboolem ñaan goo xam rek goo xamante ni baax na gu jariñ euh, borom bis boobee ak mbooleem umma islamiya bi rek ñu ngi lay fàttalil bés boobee su ko defee ni nga xamante nii noonu lañ ko nar a tëralee programme bi buñ ci àgg incha allah euh, nañ ko baaxoo defee buñ xëyee dana wàccee ay kaamil alquran ci njitalu serigne Mor Kane ak mboolem ñi nga xamanteni ñom lay andal waye suñu démé ba eh, waxtu tisbar ñu leen def khatbu bi nga defee bu ñu tisbar tisbaar bu ci walu bande yi mun démé ba nga xamanteni ni julli nan takusan ba selmal tambul programme ngon bi danañ fi defal danañ fi def waxtaan diiné wu am solo xamanteni ni kon wax sëñ Cheikh gay mo koy def soob yalla thème bi moy eh, waxi serigne Bay Jaxate ak ni faral di depo ak alquran wala ak hadith waaw ah, ndax kep ko xamanteni ni xam nga dara ci way bo setlo deug deug bari na ci yo xamanteni ni demé ci alquran dang koy fek sun borom wax nako ko bay jax dik waxal ñuko ci wolof ngir bëgg mu gën a wala ci hadis ndax bu la ci joxee ben misal mu gat rek ci ben wolof bu muy wax wala wolof la mu muy wax naan dappal euh, sa xol bi defar ngir xol bi modi di sa kee defar sa xol bàyyi sa xol mo lu muy xala faj defar sa xol defar sa kër bàyyi sa xol mo lu muy xala faj loolu am na benn xadis bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax naan inna fil jasadi mudghatun isa salahat salahal jasadu kulluhu wa isa fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb doomu aadama am na ci yaramam yi aw lumb woo xamante ne nii su baaxee léppam baax na waaye su yàqoo itam lépp yàqu na te loolu mooy xol moo tax mu ne kon defaral xol bi moo ëpp solo ngay defal leneen lu dul lu dul xol bi am na yeneen waaye mu wax naan hmm, bari alal taxul a gën néew alal taxu la bon lay tax ni tey baax ak gën ca xol ba lay nëbboo ko boobu loolu suñu borom di wax naan euh, euh, inna akramakum indallahi atqaakum rek ki la gën a ragal yàlla mooy ki la gën kon alal ju bareeg néew njëkk taxut nga yées ci nit ñi waaye li am solo ci nit mooy ragal yàlla ak yeneen ak yeneen yu mel noonu yoo xamante ne nii incha allah sëñ Cheikh Gueye moom def na ci gëstu bu yaat dana ko waxtaane su ko defee ñuy sàkk ñoom ñëpp ñu teewe ko buñ ci jógee waxtaan ak gan ñi nga xamante nii ñoo fi ñëwoon ci Eh, baatu sëñ bi incha allah ñëpp su ko defee wéyale waxta eh, wéyale programme mooy duruusu xasida yëpp ba set di set ba bët set kon ci loolu ñu ngi sàkku teewaay képp koo xam ne mën nga ko te ku ko mënut itam ñu ñaan fa nga nekk ñu ko waxee sànq rek la nga mën nga def ko ci ñaan di ñaan mboolem lu fi ñaan ci bis boobee ak beneen bis boobee lépp suñu boroom nangul ñu ko defal ñu ci def ko def jàmm ci réew mépp defal ko mboolem jullit wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh